jàlle nañu nervi yi génnoon ci jamonoy manifestation procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang nervi yi génnoon ci manifestation yi 2021 yi taxaw nañu fi démontrer numéro 9 bi nga xamné mom la wa police ni moy Samba Boy bi yox ngànnaay yi gis nga kii nga xamante sax utiliser ngànnaay image yépp ñun jëfandikoo nañu ko tek nañu ko fi nga xam mënu ko sax ñu pousse pour pour mu tirer balle te mun sax tirer pistolet bi yooyu yëpp wax nañu ko donc amul lu ci bees amul dara lu ci bees wax dëgg yalla

comme ñoom ñu jiite waa Sénégal joxuñu fullaay waa Sénégal yi leen tuumaal mburoom ba mu xonq mii man singale naa ko fi ñu leen mburoom ba mu xonq mii kuy bàjjanam parce que moom la waa police ni mooy Samba Boy bi te moom moo wàcc ci oto waa police ministre bi wax lu jëm ci wàllu bureau mi ni ci seen communication amuñu luy fir luy joxe firnde waa police bi moo ko jox firal gi mu leer naññi ni et teewul nee nañu seen communication amuñu luy firndeel ni oto bi oto police la amuñu luy firndeel li ñu nekkoon ci pick bi ay ay policier lañ ma ne gën naa garaaw lan moo tax nit ki am sañ-sañu sol tenue policier nit ki am sañ-sañu jël naa jox ko ko sol benn t-shirt bu njëkk ba muy pick-up bi woon ci juin dañu waxoon ni ñooñu ay policier yu civil lañu toxloo mu am coow bi mu am mais bii yoon waa police ci seen bopp ñoo ni ba mu xonq mi doon numéro 9 bi ñoo xam ko Sénégal yëpp xam nañ ko

bi des mooy ñi wax ni dañu dem moy ñi génn ni leer nañ dem laqatu ji siège APR mais ñen lañu xam ni ñi wa police mën nañ xam ñi mënu ñu umpé ñi mënu ñu umpé kon amu lu bess ci reportage cinq minutes bu le monde bi li ñuy xaar doon lu bess moy enquête bi président Macky Sall nee enquête bu systématique amul wati taxas genn wet kon tay balaa jant bi so ñi waro nañu leena japp xam nga ki nëbbuwul waa am yaram ji xam nga nëbbuwul borom mbubb bu la bii nii nga xamanteni bi comme niko niko niko wa Le Monde waxe mhm. ay vidéo yu bëree bëri def ci guen montu montu neub mais auto bi def ñombe bi wala yeb ñu doon def ñombe bi lan mo tax mu dem la xatu ci siège bu APR da fay poser problème gis nga fee yu melni ñun jaxalu ñu parce que da fay xewoon dañ fi tolloon ay jamono nguuru ab lewat gënu na radical il y a ay nervi yu mel ñu dem jël ay ko des nerfs sec ñu amal fi ay nervi yu mel ñu dem fekk ay journal muy euh, frasque la defena ak 24 euh, heures jël ordinateur ko moñ ba mu mok ko nervi def jëf ci Sénégal mais nervi bu bu fital ko ministre de l'intérieur ni amna ay forces occultes té ñu gis ba mu fitalam ba ba nopi dafa laqatu ci auto police ñu gis ko xamé ko té japp guñu ko ça pose problème gis nga tu ñun defuñu ku arme def na formation bi ñun xam nañu nu ku arme di di def lance lacrymogène boko né nee xam ki policier wala du policier <laughs> euh, gis nga ak ñaar ak yag du dox am na xam du sobat xam nga ji

pour ñu def naka sudul noonu parce que def naka sudul noonu bi moo tax ay nit ki jóge jàkka ñu doo ko bal mu dee ki jóge liggéeyam ñu doo ko bal mu dee euh, nit ñu dee ci ginnaaw tefes gi c'est-à-dire xew mu nit du taxaw woote ci télé fàng ñëpp di ko dégg mu ni man maa gis benn frigo bu yëpp ay nit yu ñu rey di leen sànni ci géej gi kooku balaa appelam doon noppi waroon nañ ko identifier dem jëli ko non non waxuma pour sais ko de mais pour mu indi ay firnde ci limu wax ñu sous-marin fofu non pour ñu jéxat que yi nek fofu ñu nous jék ñaari fan ñu ni na xamuñu nan la déwé ci ñu gis dafa faatu ci tefes par mais yoy ci manifestation ci après ñu am bu Sénégal

ñu ay nervi lañu ñi yéré ay yatt ànd ak police gis nañu ay auto police waxna fi fii auto police dañuy gis ci défilé 4 avril mm-hmm. amul ci benn bo xamé ni am binduñu ci police mm-hmm. wala gendarmerie wala armée wala service bu mëna do amul mm-hmm. lan lañ fa tek ay L200 on te dira d'accord police yenn saa mu dem euh, def civil mais civil bu amé demande aux policiers xam ou aux gendarmes xam lu ñu lay wax policier bu civilu fondre dans la masse. c'est pour yen sa manifestation bu comme genre RG les donne, renseignement les gën Des def day ñëw dugg ci biir foule bi. mën na sax sànni comme mieux. comme mieux. mais xam nga lu koy lu lu lu lan mooy sababam ak lan objectif Ragné, ci groupe Quand moi le leader. ba nga xamee ne benn moment moom bu gënee bu décroché dem ci équipe en tant que policier wala gendarme moom xam kan mooy leader bi ba kooku ngay singali bu jàpp di am pour jàpp kooku parce que dina am au moins cinquante pour cent lu mu wàññi ci ñu nekkoon ci ginnaaw ndax moom mooy leader bi yooyu yëpp ay technique la yoo xam ne police am na ko di ci civilu mais di nga gis kuy jaay café Touba on l'a vu en 2011 bi ñuy def fële euh, daje ca euh, centre culturel Daniel Broutier mm-hmm. ñoom caat ñoom waa Y'en a marre bañ leen di jàpp ca place de l'indépendance di leen leader yi nekk ca biir Daniel Brochet di waaj a def seen conférence de presse ci jamonoy Ablaye Wade pour leen mënul lijjanti troisième candidature ak yu ni mais ñuy sànni ay lacrymogène ak yooyu man def naa taxaw di jënd café Touba ka jënd ka may jaay café Touba yore ba mu sëggee il s'est pas rendu compte mais mënatu la yore mu leer ne kii policier la te buntu Daniel Brochet mais renseignement moo ko c'est pas que ñuy jaay café Touba ñom ñep ay les lañu. non non wala ay policiers mais dafa am renseignement dund la gis. c'est ça ba xaw lacrymogène sax romb ma na mais bon santé yàlla comme on dit mais loo dund gis ça veut dire que police am nañu xarala ak xarañ goo xamee ni. Mhm. lu ñu bëgg a lijjanti dañ ko c'est valable pour la gendarmerie. dafa am ci biir police am ci biir gendarmerie. ñu ay corps d'élite yoo xamee ni seen liggéey nekkul euh, dem ci ay prise d'otage wala dem di surveiller ay euh, euh, sportif ay Sadio Mané yeneen muy BIP wala GIGN mais mo am ay enquêteur yu nekk ci biir police ci biir gendarmerie daanaka ñoom ñëpp xarala xarala bo xamé ni mais dick lan moko ko tax brigade de recherche lan moko ko tax parce que ay enquêteur ñu ngi si ni amul lu leen ump xanaa ñu gëm ci dara mais amul lu leen ump mais je pense de l'ai dit en français il est de l'intérêt, mais suprême, de l'État du Sénégal, de la police, de la gendarmerie, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Forces armées, d'éclairer la lanterne de, l'opinion, pas seulement nationale, mais internationale. Mm-hmm. Parce que France 24, euh, le monde Afrique, mm-hmm. journaliste, c'est comme si, pourtant cette vidéo, elle circule depuis hier, ah. mais ouvre les journaux aujourd'hui, quotidien amul ko ci bind comme si fekkoon dafa am ben xétu omerta wala buñ ci wax hmm. dañ ci wara wax parce que sénégalais se pose les questions dañ ci wara wax parce que sénégalais dañu dem ba ñu wolo ci police alors que police lañu wara wolu ak gendarmerie dañ ci wax parce que tay di nga yore sa L200 boo xam da nga dem jënd ko mu war la yebal ay